asalaamaaleykum mbokki téléspectateur bu Capa TV ñu ngi leen di kenn ku turam ak santam tey fii nag ñu ngi ci Capa fas yéene leen euh, wan que ni euh, bu nekk fii nii ci Hann Capa ñoo doon def seen 8 mars. asalaamaaleykum waa téléspectateur Capa TV ñu leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santa tey jii nag ñu ngi fii ci Hann Bel-Air di célébrer mars ak benn GIE bu fi nekk léegi nag dañuy jox madame la présidente bi nga xamante ne nii nag moo fi teewal ñëpp ñu laaj ko lan mooy sabab mars bi madame la présidente nuyu nañu. ñu ngi lay fay bu baax. ah tay dañ leen fekkon fi ci an bel ngeen célébrer seen 8 mars légui ñu leen doon laaj lu waraloon lool wa 8 mars bi li tax euh, ñu koy célébrer tay moy comme niko jigeen ñepp di defee rek ndax tay comme euh, at mepp dañ cey jël benn bis jaglél ko jigeen ñi loolu tax jigeen ñi tamit diko def te ñu xam ñun kenn gënu ñu cey yey ndax bu ñuy wax jigeenu jambar fi la sampataan suñuy wax jigeen ju nango liggéey fi la sampataan jigeen juy téla xey du guddee wàcc fii la amee entroit kon tey ni ko ñëpp di defee moo tax tey jii ñu tànn ñu ne ñun tamit ni ko jigéen ñëpp di defee dañ ko war a def fii suñu gox moo tax moo waraloon bis bi tey. Ah, léegi nag bu ngeen feete bis bii di 8 mars ñu jagleel ko jigéen ñi xanaa am ngeen lenn lu ngeen xamante ne nii muy ay point bu ngeen goon koo souligner souligner te neexu leen ci dëkk bi wala lu ngeen bëggoon ñu defaral leen seen dëkk bi. waaw fii nag moom dëkk bi liñ fi gën a naqari mooy insécurité insécurité. moo ñu gën a naqari ci dëkk bi ndax insécurité yaatu na fi lool lool lool suñu dëkk bi ndax léegi si kanam rek huit bu jotee rek sañatoo yónni sa doom mu jaar nii bu fi jaaree mën nañoo nangu portable am ak leneen ak leneen rax si dolli mooy làmp yi si mbedd mi làmp yi léegi fu ñu sëlmalee fajar ñu lamp yi fay te ku nekk xam na ne jamonoy seddaay lañ nekk dëkk bi day lëndëm te loolu wóorul deuxième point bi li ñu gën a naqari ci dëkk bi mooy arrêté bii nga xam ne ñëpp am nañ ko te en trois mënu ko am ñun suñu doom yi ci mbedd la ñuy fowe amuñu fu ñu fowe à garab yi géej à géej tali bi ndax ndaw yi buñ génnee ci tali bi la ñuy ñëw te arrêté même marinage bu mënee am arrêté ba nga xam ne benn camion dootu fa jaar ñun ñoo si gën a yell ndax tey marinage amul seen benn doom yu nekk si mbedd yi taxawaan ñun ñi nag suñu mbeddee suñu fawukaay arrêté boobu jooy nañ ko mairie conseil de yenn oto yi di fi jaar yenn oto yu mag yi ñu bañati di fi jaar ci dëkk bi mooy amuñu benn place publique boo xam ne suñ doom yi mën nañ faa fawee te tey dëkk bi biñ ko lotisee fii ba yaraax ki fu ne ay endroit ay yaraax dañoo ay poos poos yooyu dañoo ñëw delloo si waat waa dëkk ñun nag amuñu benn poos boo xam ne ni mën nañ faa def dara amuñu foo xam ne nii suñ doom yi mën nañ faa fawee amuñu ko tey jii dañoo dem a dem ba jigéen ñi suñu xewle te amuñu fu ñuy toggee te loolu lépp war nañ ko mën a am ci dëkk bi troisième bi mooy maison de la femme dañ koy jooy fu ñu toll dañ koy jooy fu ñu dem dañ koy jooy boo demee Bayra Tefes am nañ maison de la femme fépp am nañ maison de la femme ba mu des ñun maison de la femme boobu nag ñu ngi koy jooy fu suñu kàddu egg fépp fuñ mën a taxaw dañ ko fay jooy pour ñu am ko loolu ci suñuy jooytu li ñu war a jooytu ci la bokk ñu di ko jooytu. waaye yéen est-ce que leen léegi seen jooytu yooyu jooytu ngeen ko ba fi mu war a yegg mu yegg fa. waa xam nga ñun suñu loxo dafa am fu mu yem fi suñu loxo yem. ña fa topp ñoo ñuy jéggil ba mu dem ñun fa suñu loxo yem rek mooy mooy di ko jooytu nii suñu invité ñu wax ko fépp fuñ ñu mën a invité buñ fa demee wax ko keroog bañ demee mairie tamit jooytu nañ ko fa ñu xamal nañu ne dinañ ko def waaye ba tey gisuñu ci dara ba tey loolu gisuñu si dara ñun nag dafa am fa suñ loxo mën a yem fa suñ loxo yem ñeneen ña ñoo ñuy jottali ba mu dem. ay ñi ngi waxaat ne. tey lii boo ñi ñiy def programme bii GIE bi moo def programme bi ndax comme fii en trois dañ fi am benn GIE bu mag jigéen ñëpp bépp jigéen bu dëkk ci en ci GIE bii nga bokk ñu di leen wax ne GIE bii nañ ko jàppaat bu dëgër ak suñu fukki loxo juróom-ñaar lu ñu am rek moo ñu ko may ñun ñii lu ñu am tey GIE bi moo ñu ko may ñun waa en trois bu dee fu politicien jóge ñëw seet suñu GIE bi moo ñu ko may ndax li may wax GIE bi ñun dañoo commencé suñu yëf commencé ko si cent franc ñeent fukki dërëm lépp lu ñu waay may rek dañ ñu cee fekk kon GIE bi moom lañ am ni ñu ngi waxaan ñëpp nañ ko jàpp suñu fukki loxo ak juróom-ñett xamaan ne lii du caaxaan tey bari nañu ko bëgg te amuñu ko am ko nag te xamoo ko ñàkk ko te ñàkk ko xam ko te ñàkk sax moo ko gën te dañ koo am comme dañ ko am nag nañ ko téyewaat bu dëgër xam ne amuñu lu gën GIE leen lu ñu def lu jàpp suñu GIE bi ndax nañ suñu bopp jërëjëf nekk nañ ci jàmm ñi ngi sant jigéen ñëpp nag naa leen ay jàmbaar ngeen fu ñu wootee ñu wuy si bu dimanche jotee ñëpp ñëw génn bale ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm jërëjëf waaw ah waaw comme ko gisee madame la présidente lañ joxoon kàddu gi fii ci Hann bel léegi dañuy jox kàddu gi madame la vice présidente Aïda Mbow mu sànni ci ay kàddu vice présidente GIE bi léegi ñu jox ko bi xam lu mu ci 8 mars waaw maa lay fay lu bëree bëri yow yaay secrétaire léegi nag ñun li ñuy wax rek comme li maire wax rek man foofu lay ñëwaat ndax chaque jour dañuy wax ne dañoo bëgg am suñu teg suñu bët pour suñu suñu te ñun nag li ñuy wax chaque jour suñu gox moo ñu ñor gox bi moo ñu ñor. insécurité beeg euh, maire wax na ba pare sax mais après liñ liñ njëkkoon liñ waroon a njëkk a commencé mooy marché ndax comme tey suñu bés la lu ñu neex mën nañ cee exprimer mën nañoo wax li ñu li ñu naqari yëpp li nekk suñu xol mais ñun li ñu bëgg fi mu ne nekk fi mu toll ni mooy marché suñu nawle yëpp dañoo am marché yaraax tefes kastoor fépp bu waay mën a dem rek am nga marché boo xam ne ni boo jógee mën nga faa dem ñun li ñu manqué suñu dëkk bi dafa bëri li ma bëgg nag di woote waa dëkk bi yëpp jéeg ji fi nekk yëpp ak association beeg GIE bi nañu gën a mànkoo gën a téyewaat suñu lii ñu yor li nga xam ne ñun ñoo ko mooma suñ bopp ndax nag dajewee dafa métti nag comme que nag fexe nañ ba am loolu nañ ci gën a nañ ko téye jàpp ko mànkoo fóotaat xol yi bu baax a baax a baax man daal laa ciy waaw maa ngi lay jébbal. ñu ngi lay baax soxna si madame la vice présidente.